at mu jot bëri na lu ñuy nemeeku ay cas de noyade ci géeju Caaroy-sur-Mer bi saison bi tàmbalee ba léegi fukki nit ak ñett ñàkk nañ fa seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni moo di président club des maîtres nageurs. début de saison bi am nañ presque treize cas noyade ren jii début laa wax début mooy moment bi nga xam ne si la école di waag a tëj entre bu ñu waree def bac ak CFE ak BFM mooy moment bi gën a propice. pour cas de noyade amoon nañ 13 cas lañ enregistré woon après waat na sax. ci plage boobu nga xam ne distance bi toll na ci juróom benn kilomètre surveillance bi du nekk lu yomb rawatina jamono ji nga xam ne ñi di sangu dañuy bëri loolu. liggéey bi yombul gis nga gis nga surveiller Dakar seen plage yu xat yooyu moo gën a yomb surveiller fii parce que fii ñaata 6 kilomètres 6 kilomètres fii parce que foog nga baliser benn milieu boo xam ne fa nga mën a wante nag maître nageurs yi ñu ngi wéy di amal surveillance bi naam sax seen lim bi matewu ko rax ci dolli amuñu jëmtukaay bu doy. mais ñun difficilement la ñuy téye fii parce que yow ngay surveiller amoo benn matériel xam nga bu ñu nee sauvetage loolu rek risque la. du secourisme xam nga loolu c'est autre chose. léegi nag bu ñu amoon matériel si la ñuy gën a yombee. ba pare ñu recruter ay euh, maître nageurs yu doy mais fii ñu ngi fi recruter dix personnes dix personnes mën na la surveiller ñu ngi naxarlu itam retard bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci seen démarrage yu activité le premier juillet la ñëpp di démarrer mais ñun balaa ñoo démarrer mois d'août la ñuy démarrer bu ko defee day dugg ci vacances day dugg ci année scolaire bi ñëw loolu déjà loolu taxu sax ñuy wax surveillance mois d'octobre lu ñu ciy surveiller parce que booba day fekk école tijji na géej gi presque kenn du fi nekk ci loolu nag président bu club des maîtres nageurs bu Thiaroye-sur-Mer mu ngi ñaan nag ñu yokkal leen seenub effectif te itam ñu jox leen jumtukaay bu doy ngir ñu mën a amal surveillance bi ci ni mu waree loolu dina tax itam ñu wàññi kàddu nuwaayaat bi ci seenub gox.